waaw pare na d'accord euh, Siteu man question bi moo am bari na sax mais première question mooy sa digganteeg mbëru jàmm gën si kàmbaaw sa digganteeg mbëru tund bi en tant que mbëru dëkk bi xale yi di bëri léeg ñu gis ne xale yi yëpp kenn ku ci nekk buy bëri rek day daw takku ci ci yow ci maanaam ci jàppale li ngay jàppale mbëru jàmm gën si kàmbaaw yi ak rawatina sa digganteeg Liss Ndiago barki Demba Ndiaye woo na la ci combat bi nga ñëw sa digganteeg xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk jàmm gën si kàmbaaw waaw suma diggante xale yi jàmm gën jàmm gën laa am bu doon jàmm gën laay sol waaw jàmm gën sama xol la nekk taamuwuma kenn ñëpp laa fonk ñëpp laa yëg ci kaw tamit képp ku ma yëg tamit mu lay yëg waaw parce que man fii man maa fi jeune boo xamante ne être xëy na yàlla mën lañ génnee ci tur mais am na ñu fi jiitu woon nekkoon ay mbër te ñu si bari dama leen tarbiyu dama jaar seen loxo dañ ma jàngal ñi dañ ma doon yóndi ñi dañ ma doon def lépp kon tey bu ma nee am ak samay morom ma fi nekkal yoo xam ne samay morom la ñoo ma dàq foofu mais xëy na yàlla day man sa man la feeñal sama tur waaw kon tey mënu ma lu dul wàcce waat sama bopp seen kanam rek waaw nekk nekk taalibe seen wet rek loolu moo waral sama cofeel si ñoom ba tax na ku ma am xamante ne yàlla boole na ma ngi yow moom mun a dugg say mbir rek waaw damay ñëw ñëpp laa yemale dafa mel ni site rek waaw lii tamit sama rakk la waaw gis ngeen open press am bi lii si yaakaar naa ñeenti yoon la ma mos a gis si dundam te ñëw dëgg jàmm gën ñeenti yoon. ñeenti yoon la a gis waaw ñeenti yoon su ma waaw mais peut être loolu si man la man maa dul xamuma waaw mais ñoom ñëpp samay rax lañ sama xol lañ nekk ma koy ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko ba mu dem ba raw ma waaw man loolu laay ñaan. waaw parce que gox bi la wax nga ko sànq nee nga soxla nga bëre ak Lac de Guiers. waaw ñu bëggoon a xam est-ce que ay promoteur ñu ngi ciy dox. su fekkee ñu ngi ciy dox fan lañ fan lañu ci négociation bi mu ngi avancé wala. non max nee nañ am na ay promoteurs si dox mais avancé wu ma xaw ma si cent pour cent parce que lu taxawagul moom du ma wax mais moom may xamal am na ñu si dox moo tax xanaa gisoo maa ngi tooñ sa waaye léegi ne xanaa makan moom du ma tëggal combat wala man bokkuma si mbëri muy tëggal combat. waaw mais si dañ doon gis ñu man maa laaj Lac de Guiers wala Lac de Guiers ma njëkk a soxla. moo a waaw mais danga ma laaj ma tontu la rek dama bëgg mu gàtt moo tax ma ne ko pare naa parce que am na keneen ku ma war a laaj. mais Lac de Guiers rek nga ciblé ci mbër wala am même keneen ku ñëwee. déedéet déedéet man làmb laa fi nekkal <coughs> làmb moom laa fi nekkal ku ma làmb booleel samay kilifa gis ne ne baax na sa waay ma dama koy jëlee waaw. mais sa relation foofu lañ koy dugg ndax gis mu bëree Ada te maa ngi sant si si taamu andiwaat ci làmb ci waaw Zarko maa ngi koy nuyu Baye Fall bi maa ngi koy moom bay Fall la waaw Zarko dañoo toog benn moment eh, làmb ji mu sentir Zarko quoi gisatuma ko. yee mm-hmm. eh, ma lijjanti numéro am woo ko jour sax dañu xuloo parce que dañu xuloo ba mu coupé téléphone am ma loolu yow la. après si lendemain ma woowaat ko c'est la même chose mu ne ma nit sax. ma ne ko non yow dañoo war a wax ñu waxtaan ma ne ko yow da nga war a ñibbisi yow danga nga bàyyi xaalis bu bari fii ñu wax ma ne ko yow mun dem naa Grand Yoff seeti naa boo yëpp te kooñam yëpp laa dugg boo yëpp samay boole samay waay la ñii samay grand lañ mu gisee moom moom mun na protéger Grand Yoff ma ne ko ñëwal moom tamit mu ñëw te bu mu ñëwee gis na ko mu ngi avancé mu ngi bëri yàlla di koy defal teranga loolu la rek loolu gese lañu seeg. seeku ñu mu doon te mhm. Mhm. gis ne ñu bari ne dugal na ci loxoom. xaalis yu bari bari. sa waaye man dama am xaalis sax rek laa am eh, sama jëmm ji rek laa am waaw man yow man yooyu man duma si dugal sama loxo eh, man sama bopp laa tal quoi waaw. maa ngi baax a baax di la siyaar yaakaar naa fi may njëkkee mooy combat bi fi amoon le premier janvier si diggante Balla Gaye ak Boy Niang nga defoon benn interview live ne waa Pikine bu ngeen xoolee ba Balla Gaye daan Boy Niang loolu seen gàcce la seen affaire la damay gis sax yenn ci sama mbokk journaliste yi ni ñuy suusu semee Boy Niang ci combat bi combat ba passé géejawaay am ci yenn thème bi nga jëm baaraamu tuuma ne da jël sa loxo dugal bi yëpp question boobu lan nga ciy tontu Sénégalais waa mais ma leen di laaj est-ce que man awma droit far wala am naa droit far yow laa koy laaj am naa droit far waaw dama far rek nekk nit rek ñaari ginaar yi xeex ma xool ginaar bu ma neex ma faral ko loolu la rek Balla Gaye sama combat man ak Papa bi man la faral ma la mi barki démb rek moom mais loolu loolu loolu yàqu si àdduna du tee sama grand la ni ku baax la analyse laa joxe far comme que ñëpp nuñ koy defee. Lac de bi nga demee joxewul analyse far. keneen ba mu demee joxewul analise far c'est point loolu la rek mais Balla mbër la suñu grand loolu la rek gis ne Boy Niang jeune la boo xamante ne Pikine ñëpp dafa wéetoon mu gis loolu. mais ma waxoo rek mu indiwaat beneen ampleur lamb ji ngeen gis seen bopp yeen promoteurs yi la rek mais. bu dee dama si ku si nekk da nga si gis sa bopp loo xamante ne daf la métti nga baal ma mais man jaam laa rek boo xamante ne waaw loolu la rek. ok en tant que bu nekk si biir laa nga jekk saa yi comme si bi dafa bëri léegi ñu lay jam baaraamu tuuma ci yenn ba ne la ñenn ñi sax say potentiel adversaire lañ. loolu mm-hmm. di ko dégg say ñoon di ko la lay def. non defuma dara parce que dañoo umpale rek dañoo umpale rek waaw. defuma dara mais si loolu la si jëyeem rek boo ma ko laajee peut-être naa la si tontu waaw. fi may jeexalee yow jox gars yi comme gars yi dañ fee bëri te question yi day war a yaatu Gris Bordeaux def na benn point de presse ne combat ak Ama Baldé Ama dafa dugal médical 21 jours te Gris Bordeaux bëggul parce que 21 jours yi matagul nee na pare na sax pour bëri ak Siteu Abass Ndoye président Igri Fass appuyé loolu sa combat ak Gris waaw man tamit pare naa giri giri man pare naa de man du daw dara de pare naa comme ni nga pare boo paree suba sam pare naa waaw na ko jar rek na xaalis bi ñëw rek waaw kan giri ah, man lan la parce bu mel ni giri xeex di bëre di suñu ma commencé bàyyi may xale bu ndaw nga naa ma nii giri man daw ma si yataa xanaa doo xool Ah, Zarko waaw. Zarko la jox doo xool. waaye du xippi bëtam bi. ah day indi. ok gars yi na yaatu. ban daj ma doog a ñëw. maintenant si loolu wax na léegi sa diggante ki nga xamante ni mooy Boy Niang. wala mhm. ñaari ginnaaw sax bu ñuy xeex am nga du faral kenn mais ñu bëri di wax diggante Siteu ak Boy Niang. waaw ah. combat dina dox seen diggante ndax Siteu ak Boy Niang dinañ bëre loolu tam war na leer ci bopp askan wi. ñu ngi koy laajte bu bëri nga koy laajte. Siteu ak Boy Niang lamb boole na leen wala boole wu leen. waaw Boy Niang ak Siteu nag man ni ci Boy Niang di waxee rek laa ci waxee dégg nga papaam dafa ma yar dégg nga mais man damaa may kilifa te samay kilifa mosuñu ma si woo te moom tamit chaque jour ni ma ci waxee rek la ci waxee mais loolu boo leen ko bëggee xamee da ngeen di da ngeen di da ngeen di gis ku yor saako xaalis dem ba ci kër gi wax ba génn su boobaa di ngeen xam loolu lu leen si leeral wala lu leen si leerul. comprendre nga loolu laa ci am lu ma ci wax chaque jour da ci promoteur yor saako xaalis rek dugg ci kër mbër mi ba génnaat. waaw asalaamaaleykum mbokk journaliste bi toog yëpp am contentement toog ak euh, Siteu mi toog tey. Mhm. du ma danaa poser question mais ngeen may may ma tuuti rek mu wax si moom du bariwul. Mhm. ñëwal Siteu mi jàmbaar dëgg ngi nii. Mhm. bu muy dugg si làmb ñu bëri gëmuñu ko woon. mu nekkoon lu ndaw a ndaw a ndaw. Mhm. nit ñi ne kii xanaa day xaru xanaa day dof. Mhm. mu commencé si ñoom mbay vingt ans ñoom naxa naxa ñoom frasier mhm. mu xuus jàll kenn jàllaloo ko bu mu àgg fu mu toll nii donc jàmbaar dëgg ngi nii te bu continuer si yoon bi yaakaar naa li mu bëgg fu mu teg bëtam yàlla mun na ko ko may donc lépp loo gis si àdduna rek gëm-gëm daf si am solo te booy bi dafa am gëm-gëm lu ndaw la woon nag billaahi lu ndaw a ndaw la woon xam nga muy xuus seen biir tey ba ñëw àgg fu mu toll donc li may wax rek li des si carrière am yàlla ko si yàlla may si mu raw jottam mais mu wax koo tamit tamit fi mu jëm dafa mel te démb jëm naa Max Mbargane mu ne sa combat ak Gris am na ay promoteurs yu ko bëgg mhm. may laaj entre Lac 2 ak Gris tey boo doon choisir ñoom ñaar tey kan mooy sa premier choix waaw sama choix bu njëkk nag mooy saison ren bi ma bëri si mhm. bëri si nag mënul weesu comme si mun a doon si ñoom ñaar bëgg naa loolu mooy sama choix waaw mooy ma bëree si saison bi parce que ñoom seen carrière mu ngi dem te ñoom ñoo ngi entraîné te entraînement bu ñu def toog année boobu bëriwul rek ñoo ngi per giri foofu la doon waxee ak yéen xaw ma dégg ngeen ko waaw kon tey nañ ko jàppale si loolu man bu dee man moom pare naa waaw wax dëgg fa yàlla Lac de bu ñëwee tamit pare naa waaw. maa Zarko ak ki nga xamante ni mooy Ada Fass ñoom ñaar ñu bëri si ngor bëri si fulla bëri si fayda waaye après combat ñu dégg ni CNG daf leen teg ay daan sanctionné ñaari mbir yi ku nekk waxtu un an terme ñu ko si ñaari xale yi nga xamante ni gox muy topp seen ginnaaw waaye si ñaari xale yi nga xamante ni seen ay waajur dinañ yaakaar en tant que porteur de voix ki nga xamante ni saa yu dafay message sensibilisé askan bi dañ koy bàyyi xel dañ koy dañ koy wéree tey loolu bu ñu ko dégg ñu def si en tant que mbir waaw nañ xool yeneen tàggat yoo xamante ne ñu tàggatee xale yi wax ak ñoom avant mais man pour man d'accorduma pour ñu aj leen quoi parce que koo xamante ne loolu mooy gañ PM dañ ko si war a jàppale bu baax ñaan yàlla CNG bi nga xamante ne moom moo yor ndogalam gën ñu xam règlement bi ah li ko ñëpp di defee rek dañ lañ jàppale ñu xam ne seen i doom lañ seen i sët lañ seen i carbaat lañ dañ leen jàppale et indiwaat lañ si làmb ji quoi pour man. dama sob sax moo ma la koy laaj mhm. sa diggante waa ISBEN. gis liy yëngu mhm. moo waral loolu sa boobu nag man bu ma sañ su ma sañoon dañuy wax si làmb ba pare peut-être dinaa la si tontu waaw bu ñu jeexalee si làmb dinaa la si wax quoi. bu ñu duggee si côté actualité dinaa la si wax. incha allah euh, Siteu question bi ma lay laajaat mooy sa digganteeg roi des arènes Modou Lo. Mhm. est-ce que Siteu pare na pour bëreeg Modou parce que Modou ñoo ngi wax diggante Modou Lo Boy Niang ba léegi gisuñu combat bu taxaw mais est-ce que Siteu pare na pour Modou Lo. waaw Modou Lo sama grand la Modou Lo ñu bari dañ may laaj ay question Modou Lo Modou Lo Modou sama grand la nekk grand boo xamante ne eh, depuis ma ko xam ba léegi ni ku baax la dama ko yàgg a gëm dama ko yàgg a suivre parce que dama am sama benn doom baay boo xam ñu nekk xale lañ gis a gisee mais bi ma ko gis ko muy supporté Modou Lo man tamit si noonu laa ko mujjee xam nga la eh, si yooyu lañu ëppoon di ñu gisante temps boobu parce que ay combat moro lañ doon am temps mu génn ñu dajeeg muy kadeer mu dem ba marié ak raxam Modou loolu nekk sama fierté nekk gëm-gëm boo xamante ne lu ma sàmm ba tey du ma ko mos a dindi dégg ma mais sama diggante ak Modou c'est la même chose comme li ma la wax si Boy Niang samay kilifa mosuñu ma si wax nii mosuñu ma si wax naa boo ko bëggee xam yore saako xaalis nga dugg suñu kër dégg nga waaw noonu la demee nag voilà. ba tey Fallou bi ma koy laajaat muy dafa bëri woon ak guy gi 29 naa bi combat bi passé ba tey guy gi moom nee na bal bi mi ngi ci say camp du la tëkku parce que moo la daan. kan guy gi. waaw. waaw booba daan moom wax dëgg fa yàlla. benn ma instant moom xooluma ko guy gi moom war naa xam ne man bu may bëree moom dama sëfee sax làmb ak sama manque d' expérience koo xamee sa bopp dafa toj mu ñëw bëri ji yooyu yëpp ma bëreeg moom ba pare dem leen ngeen seetaanaat combat Siteu ak guy gi bu baax lépp man maa ko def ba pare am blessure boo xamante ne mënu ma ko sa expliquer sam bopp lañ toj ci stade bi waaw kon foofu laa ci yem ba yàlla def xamal ma la man maa ngi ci leneen maa ngi teg sama bët feneen ne ko moom na xool na jël Zarko tarkindaa boobu waaw loolu di combat nga ne mais Zarko daanu ko woon mbapat waaw ah, ah, kon nag jeex na si te sa beneen question mooy que ni la dëggee de ñu gis mbër mu naqaree bëri la mhm. boo xoolee euh, gëj na daanu ay at tey ñu bëri di ko maytu ba ci ku ci mel ni Gris Bordeaux bi ñu ko waxee sax man bi ma ko wax def na mu bëri maa ngi la dëggee numéro deux tey ñu gis nga am yow nga nga am ordonnance ne la dëggee su paree pare naa est ce xalaat nga bër bi nga war a jël ci ko neen day rasu du bëri lépp lu fay am adversaire dama koy def nga nan nga bëgg a bëri la dëgër bu fekkee combat bi taxawoon na tey parce que bëri la dëgër yombul. waaw lan dëgër de mun naa waat si yàlla ne ku wax dëgg rek te yàlla rek tax. Hmm. ku mu gënul nekk champion gënoo ko nekk champion. koo xam ne seen biir la nekk xaw ma benn jël la daa daanu. Hmm. ah benn jël ah, mais nañu waxante dëgg. lan dëgër kenn yabu ko ci làmb ji. kenn yabu kon tey man bu ma nekkee ndaw teg sama bët si moom kon tey dama bëgg tamit ñu respecté ma rek. Hmm. bu ma bëreeg Lac de Guiers daan ko kan moo ma sañ a ci lamb ah waaw léegi ñuy tuutal Lac de Guiers naan du mbëru lii Lac de gënul nekk champion fii Sénégal gënoo ko nekk champion mm. waaw man gëm-gëm boobu la am boobu la mm. te damay ñaan yàlla nekk